namal tariq tijaaniya la bisu namal faydu Mawlana Cheikh Ibrahim la waaye tamit ma am possibilité pour wax si parce que lu tax mooy ñi nga xam ne moom lañu fi teeru tey dajee fii ngir moom man ci ronam laa yaroo moo ma yar mooy Cheikh Mamadou Mahi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nekk tey xalifa Mawlana Cheikh Islam Hadji Ibrahim Niass waaye liggéey bu réy bii mu def tey ba mu feeñ ne alam yëpp gis ko yàgg na di ko def avant muy nekk xalifa bi yàggoon na jël ay responsabilité ci diine ji ci tariix bi ci fayda Cheikh Ibrahim man moo ma jox tariix Tijaan ci loxoom këram laa yeroo doon jàng ci maat ajab laa ñes mooy école bi nga xam ne Baye Niass moo ko tabaxal boppam te nee na moom Baye Niass ci école boobu la génnee kon école boobu moo ñu mag ñun ñëpp moo doon Cheikh Mamadou Mahi mii ñuy teru ci école boobu la génnee magam Cheikh Alhaji Abdoulaye Niass Al ci école boobu la génnee magam Cheikh Alhaji Ahmadou Al Khalifa ci école la génnee magam Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu al Khalifa ñoom ñëpp ci école boobu lañ génnee parce que école boobu mooy Baye te Baye moo waxoon ne wala abdu qad laqiya ilmi wa jaa'u al ismi wax mi kon ñoom ñëpp ci école boobu lañ génnee tey nag bi yàlla indee mu dem ba nekk Khalifa Mawlana Cheikh Islam Hadji Ibrahima Niass mu dem liggéeyi liggéey boo xam ne ci tool boobu la Mawlana Cheikh Islam way juróom nekkoon di ko liggéey ba wan ñu ginnaaw te mosuñoo wan ginnaaw parce que waxoon nañu bis bu yi di gën a garaaw wa maratan uxra taraw na ajaban min fay di dal xat mi imaam yi jaba ajaban jooju bokk na ci tey lii Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi def mooy dem ba bitim réew dëkk bu ñu naan Soudan ca Darfour mu réglé fa problème boo xamante ni àdduna bi yëpp ëlëmoon na leen tëwoon na leen pour ñu réglé ko lool nag mooy joxaat leçon ñi nga xam ne ñi ngi ci yarub l'islam nekk ci yarub tasawuf xam nañ ne l'islam lii réglé problème yi ci arme nekkul ci ngànnaay nekk ci doole mais yar la station la jikko la yar bu rafet la waaye nga jël xam-xam ak yëg-yëg def ko ci jëmmi doomu aadama yi ba jëmmi doomu aadama yëpp mën a bennoo ci garab gi nga xam ne ci lañ jugee woon ñun ñëpp gëm nañ ne ci benn garab lañ jugee mooy aadama ñun ñëpp gëm nañ ne ci benn garab lañ jugee mooy yonent Yàlla moo sallallahu alayhi wa sallam waaye pour ñu dund loolu noonu dafa nekk problème lan moo tax ñu ko dund nag mooy dafa am ay fil branchement yoo xamante ni comme sa matériel yi ngay utiliser yi nga xamee ne faaw nga am courant mu doog mën a tàkk branchement yooyu nga xam ne bu courant bi frigo bi dina tàkk ventilo bi dina tàkk rajo bi dina tàkk télévision bi dina tàkk te yooyu yëpp mi ngi tàkkee ci tàkk courant bi ki am courant yàlla boobu nga xam ne bu la ko maasee nga yëg ne doomu aadama bi mooy yow yaay moom yëg ne yéen bokk benn garab bu ngeen jugee yëg-yëg boobu ki ko mën a def ci yow kooku rek moo mën a tax yow nga jàppee sa morom sa bopp ba doo yëkkati lu ñaaw di ko jëmee ci moom yonent yàlla moo salaa sam Seex Tijaan yi waxoon nañu ne waxoon na ma ne xul li azabika laa tuzi baxdum baxdan fa inna zalika yubsini waxal ne sa taalibe yi luñ lor ñeen ñi ci ñeen ñi ndax loolu daf may lor kon dëgg-dëgg ñu amee ñoo xamante ni suñ naree lorante ñu ñëw taxaw defare diggante yi rafetal jikko yi ba nit ñi nga xam ne ñoo réeroon ba naroon a jàmmooloo ci ay arme ñu mën a tegaat arme yëpp dégg nga nekkaat benn juboo dëgg-dëgg liggéey bu rëy boobu bu ko réussir mooy Cheikh Maodo Maye Cheikh Ibrahim Niass nekk xalifa Cheikh al Islam Hadji kon jot na tey ñu delloo ko njukkal loolu moo ñu fi dajale tey mu am beneen message bu ma bëgg a jàllale ci Sénégal ak sénégalais yi parce que lu tax mooy souvent dañuy gis ay nit ñoo xam ne seen déggin ci diine bokkut ak dégginu sufiyanke yi bokkut ak tasawuf ñii dugg ci internet bi di ay ayibal suñuy kilifa diine di leen sànni ay tara di leen ay wax ay wax yoo xam ne yu ñàkk teggin la dëgg-dëgg su fekkee am nga ay argument yoo waxante ak sa morom ci diine ci aaya bu ngeen wuutee wala masala bu ngeen wuutee wala déggin bu ngeen wuutee andil argument yooyu ñu waxtaane ko waaye pas ngay soboote wala ngay saaga loolu di jikko jullit di jikko nit ku baax di jikko bu rafet te ñooñu ngay xeeb di leen saaga di leen ayibal ñu ngi génn ci alam bi di régler ay problème yoo xam ne ñooñu di leen ko régler loo buñ amoon ku mel noonu danañ ko téye waaye duñ ko ayibal duñ ko duñ ko saaga dëgg-dëgg kon yàlla waxoon na ne wa taqoo fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaasatan ragal leen fitna parce que fitna bu ñëwee du yem ci rek kon dëgg-dëgg dugg ci internet bi ayibal ay kilifa diine ay nit ñu baax ay waliyu yàlla ñoo xam ne dëgg-dëgg yàlla moo waxoon ne alaa inna awliyaa llaahi laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun allaziina aamanu wa ñoom am nañ iman am nañ ragal yàlla am nañ xam-xam dëgg-dëgg nga leen di ayibal loolu yow yaa ngi bëgg a taal benn étincelle boo xam ne yow mi xamul ay rek yaay jéem a ñoo di ay waaye ñi xam ay doon ko dund ba na ngéej mucc ci bañ gisee ku leen defaree ku leen ci génne génn nañ ci loolu nag mooy li ñu fi dajale tey ñu ñëw teg ko gan gu maag googu nga xam ne du gan mais gan la parce que lu tax mooy dafa am lu mu indi te indi loolu gan la te loolu lu xel yëpp soxla woon la alors léegi euh, fi nga xamante ne euh, kuréel yu mag dem nañu fa te ñu échoué moom mu dem foofu mu réussir en tant que yow taalibe Baye Niass lan moo waral lan xam nga secret lan la mooy li ma wax léegi école Baye Niass la génne d' abord kan mooy Baye Niass ak lan la indi ci alam bi. gis nga Baye Niass mooy jëmm xam ne dafa dafa amoon xam-xam baatin mais dafa amoon xam-xam zaahir mooy xam na jaam bi fan la war a jaar ak moom ba jëriñ ko ci zaahir jëriñ ko ci baatin Baye Niass seul la nga xam ci sëriñ boo xam ne dafa ñëw di gorowante ak ay taalibeem takk seen i doom jël ay doomam may ko ay taalibeem soo demee Niger. am na doomu bàyyi bu fay sëy tudd Seyda Oumou Khayri mi ngi fa taxawal ay école yoo xam ne kenn xamul nu mu toll te nekkul doomu Niger bu juddoo Niger mais bàyyam moo ko yëkkati maye ko Niger mu dem sëyi fa liggéey fa liggéey bu toll kooku ña fa jur ci ay njaboot ay Niger la ñuy nekk yoo xam ne ñoom foofu lañ dëkk mais Sénégal mooy seen cosaan est-ce que ñooñu danañ gisee danañ dem Sénégal di fa taal ay aw xay wala danañ ko jeg benn Sénégal demee bàyyi di fi takkee ay am na benn soxna dafa bàyyi takk boo xam ne muy Seyda Balxiis mi ko takkee ci doomu Abdul Malik Koukay ni bu Nigéria kooku am na njaboot boo xam ne ay doomi bàyyi lañ ñi ngi dëkk Nigéria est-ce que ak ñooñu dëkk fa danañ yëy na ay Sénégal kon intégration africaine ak buñ bëggee Afrique nekk benn liñ di ko gën a gaawal mooy Mawlana Cheikh al Islam parce que moom dafa ñëw ñeel umma bi yëpp ñëwul ngir benn localité ñëwul ngir benn xeet ñëwul ngir benn mais dafa ñëw ngir alam bi yëpp ci jamono bu tukki jafee ci année yi la bàyyi di yëg القرى والمدن بل هل جبالا أرو مريد الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا maa ngi tiim géej yi maa ngi yëg si avion yi maa ngi tiim montagne yi loolu yëpp dara def taxul ma def ko lu may damaa bëgg a diine dimbale diine yontu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mais nouvelle génération génération bi ñëw ci mujj ak jamono ma jox leen ci exemple di anal na li hasmi dahra ma qasa bala saddu udwana warada dalala wa yontu yàlla moom bàyyi mu ne musul xeex daf daan delloo bew maanaam yonent bi musul xeex mooy dugub jël arme di attaqué kenn mais dafa ñëw oote xam-xam ñi ko déggal topp ko mu war leen a protester parce que moo leen oote xam-xam ñi ko mooy weddi ko mu baleen ak seen weddi ne leen làkkum dina ko lii di mais ñoom ñoo demoon ba mënuñoo digérer xam-xam bi ne ci moom njub bi ne ci moom ak mbooloo mi fàq di ko topp ñoom ñoo jël takk armée nag attaqué yonent bi yonent bi doon def légitime de défense moo tax baa ni yonent ko doon attaqué muy tontu kon dëgg-dëgg bàyyi ne diine ji laajul xeex diine la xam-xam la waxtaan la organisation alam bi muy tubaab yeeg muy Nations Unies muy mboolem seen organisation yi du ñoom ñooy le situation bi nekk ci àdduna bi situation ci bi nekk ci àdduna bi l'islam rek moo ko mën a réglé te kalimatu tawhid la ko mën a réglé muy laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah alquran la ko mën a réglé moo tax bàyyi ci jamonoom boobu ñun juddóogul waxoon na ne fa maa nappal ñun aw la niinun wa markasu ay ñoom Karl Marx ay ñoom nappal ay la niin nekkul ñoom ñooy solution àdduna bi déedéet wamaa nafalihun aw na nin wa man usul bi muuxan ilihil xaliyanka xabaala kitaabun min allahi jalilu jalaaluhu xadimun wa baaxin laa yaxaafu zawaala téere yàlla bi nga xam ne moo màgg moo jugee ci yàlla mooy buum nga xam ne yow soo ci jàppee ma jàpp ci ñun ñëpp ñoo bokk ci benn buum buñ jàpp kenn du lor moromam waxta si moo bi am dinay jameen walaa dafara koo kon li tax ñoom ñi ese Cheikh Mamadou Mahi Madouna Cheikh Ibrahim nekk mooy njabooti baayam ñoo fa nekk yoo xam ne ay millions yi millions lañ xam ne bàyyi gis lañ gëm tarixa tijaan lañ gëm faydu Cheikh Ibrahima lañ gëm lislaam lañ gëm ñoom ñëpp ñi di toog ci benn géewu wasiba di bokk di toog ci benn xadara jumaa dëgg-dëgg loolu soo ci toogee ak sa ngeen pare xadara wala ngeen pare julli nga jox loxo mu jox loxo da nga xam ne kii su ndax xam nga lan moo tax lislaam ñëw andi benn nuyoo boo xam ne da nga naan asalaamaaleykum nit moom moo xam jaasi moo xam fett soo dajee nit wóoluwoo sax ba xam am na luy lore lu nekk ci loxoom mën a déet l'islam ñëw andi nuyoo asalaamaaleykum tàllal sa loxo wan nit ki ne ko man jàmm rek moo ci man aw ma aw ma dara luy loraate lii mooy politique l'islam l'islam jàmm la oote diine jàmm la waaye ne jullit bi saa wu noppee ci jàmm yàlla rek yàlla li ko sant mooy na ut jàmm sàkk jàmm bi hikmati wal maw'izati hasana wa diine laajul xuloo laajul xeex laajul arme laajul ngànnaay waaye ci xam-xam la ci xikma la ci fexe ba jubal nit ki te doo ko lor la loolu mooy mission Mawlana Cheikh Islam moo tax alam bi yëpp solution bi bàyyi ñes la parce que moo fi indi solution boo xam ne duñ ci jàppee duñ xeex duñ xuloo te danañ am liñ bëgg gis nga bi dafa am loo xam ne moo ko mën a doy su ko amul rek lépp lu mu am day mel ni doyu xam ne am na étage doyu ko am na ay étage doyu ko am na am na am na euh, ay société doyu ko mu dem ba dara doyutu ko bëgg na nekk xiif aadam bi yëpp tax na muy def politique yu nekk di jël alalam di ko financé di ayibal ay nit di di bëgg ay nit yàlla loolu yëpp dafa am lu mu ñàkk loo xam ne ku ko xas ba ñàkk loo amati du feeñ te mooy yàlla waaye bu amee yàlla lépp lu mu ñàkk du feeñ gis nga bi nga xam ne boo boo ko ñàkkee muy yàlla amul loo mën a dugal ba mu fat yàlla boobu ñu ko ñàkk ñëpp ñoo tax àddina bi tollu fii mu tollu tey waaye bu doylu woon buñ amoon yàlla danañ doylu konoon jàmm rek mooy nekk ci àddina bi waaye da am sa benn mille kii yor ay milliards lu si toon nangu sa mille francs bi ci milliards am yi au ci milliards yi mooy na ko parce koo doy dafa ñàkk yàlla ñi am yàlla nag moo tax tey dañuy indu ci naaj bii tey parce que xam nañ li Cheikh Modou Maye def si ñun xam nañ li bàyyi def si ñun fii bu ko laajee dañuy toog fii di ko xaar parce que mission bi mu ñun liñ si musal loolu moo tax ñun ñu toog fii di ko xaar ndax képp ku am jàmm ku ne ku ne naam may fekk nga nekk fa su fekkoon suñu réew tey ay bal mi ngi tàkk gauche droite danañ tal leneen lu may togg añ danañ tal leneen lu may lekk kon nag buñ ci muccee ka tax ñu mucc ci kooku war nañ koo delloo njukkal te ñi tax ñu mucc ci mooy borom xam-xam yi yàlla wàccee Sénégal kilifa diine yu baax yi ñu fi wàccee ñëpp mi fi wàccee loolu moo tax Sénégal am jàmm am ñun ñëpp ñu nekk ay ay frère nekk ay mbokk te alxuraan bi ni'mati wa salaamu aleykum wa rahmatullahi